monsieur le ministre ñu lay nuyu. ñu ngi leen di delloo nuyu. Eh, tey jii ñu gis la nga ñëw ànd ak sa convoi def yëfu taal bi ñëw eh, takk sa ndigg dugg ci li nga xamante ne moom mooy tool yi loolee lan moo ko waral. waaw d'abord ñu ngi leen di nuyu di si fii si Lagane eh, di santati yàlla di si yonent bi sallallahu sant sëñ Touba sant sëñ Saalu suñu sëriñ ak sëñ Cheikh jiital si. sëñ Cheikh sëñ xalif général des Mourides euh, tool bi nag liggéeyu liggéeyu sëñ Saliou la ba ñu ko dénkee yaa am na seize ans euh, chaque année ñu ñëw fi te chaque année tool bi gën a yaatu nit yi gën a bari euh, mbir bi sax du convoi parce que appel au sëñ Cheikh Saliou la Euh, liggéeyu sëñ Cheikh Saliou la ñun dañuy ñëw barkeelu si liggéey bi ñu ci dinañ jóge fu nekk Sénégal Saalum Dakar Mbuur kawlak fu nekk pour ñëw barkeelu si liggéey bi liggéeyu saaño la mooy dugub bu gën a yàgg si pour mu ñor et dugub bi am dëj mu gën a bu gën a euh, euh, difficile pour liggéey wante ñu ngi si barkeelu ñëw di si sant sëñ Saliou Mbacke bu baax parce que euh, fii suñu daara bi ñu ñoo fi ay jëwriñ ak yeneen jëwriñ moom ay gune yuy jàng alxuraan euh, gannaaw euh, loolu li ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy ngóob yëpp dina njëriñ daara bi pour année bi yëpp. ñu gis ne saa yu ñu wootee rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibe yi bàbbeeku fu ne ci àdduna bi ñëw jàpp ci liggéey bi. waaw parce que xam nga sëñ Saliou moom euh, mooy borom jamono euh, moo ñu defar ñun ñëpp ñun ñëpp nga xam ne suñu jamono bii moo ñu defar te ñu ngi see sant bu baax a baax a baax a baax euh, liggéeyal ko nag barkeelu la te ku bëgg barkeelu si sëñ Saliou moo ñëw liggéey si tool yi muy fii muy kom ak Daaru Salaam yooyu yëpp wante fii nag mooy dernier liggéey bi nga xam ne. mooy lagaan euh, lagaan nag mooy lu gën. Euh, ban seede nga mën a andi ci tey ji taaw bu góor bi nga xamante ne liggéey bi jamono ji ci ay loxoom la nekk. ah xanaa sant sëñ Saliou euh, mu bàyyi ñu fi sëñ Cheikh ñu koy xoolee sëñ Saliou nga xam ne moom jumaa rek lay tabax ak toppatoo tool yi ak gune yi ñu ngi see sant bu baax mu mët suñu mu mët ñu mu mët ñu sëriñ mët ñu gid mët ñu lu nekk di toppatoo tool yi. Euh, si loolu tamit ñu fàttali ko rek ki nga xam ne euh, mooy sëñ Saliou Njulul te euh, yàlla yàlla ak sëñ Touba jëlee ko fi si at bi te mu nekkoon suñu jëwri ñun ñëpp moom mooy yore woon tool yëpp tey ñu ngi koy fàttali di di di di di di di fasaale ko bu baax si si liggéey bi fasaale nag ñëpp nga xam ne am nañu yéene si sëñ Touba ma tàmbali si si sama ay xarit te muy si si si Dame Dieng ak ñeneen ak ñeneen ak ak ñeneen ak ak yeneen xaadi sëñ xaadim euh, ba ak ñeneen ak sama ay wëllëre euh, ñoo ñëpp nga xam ne dañoo jàpp si liggéey bi muy sëñ Ablaye Dia muy sëñ Moustapha Ndiaye euh, Arouna Dia ñoo ñëpp jàpp si liggéey bi daal pour que ndongo yi nga xam ne sëñ bi fii la leen bàyyee pour ñu jàng axraan jëriñoo ko si at bi yëpp boo jógee fii da ngay dem Touba tourné nga am wala dangay ngay seeti kilifa yi. man xam nga man nag euh, waa kër sëñ Saliou laa damay euh, damay dellu sama kër Touba parce que am naa fa kër dem ziare sama sëriñ euh, santati ko parce que mbooloo bi mu indi at bi ndax liggéey bi ñun sax dafa ñoo yéem lool ne bari na bari na lool santati ko ziare sama sëriñ dem si xablu bi après. après ñibbiwaat nekk ci waar bi beneen waar bi nekk Dakar. Euh, sa kàddu gu mujj lan lay doon. santati sëñ Touba rek di bëgg sëñ Saliou.